ndaxte CNG ngi fi te CNG dina wax règlement bi li mu nangu ak li mu nangul mbër bu nekk ak lam la may waaye balaa ñu wax foofu ñu def échauffement tuuti ci ñaari mbër yi nag. ah da nga bëgg ñu échauffer ah waaw waaw. ndaxte ñaar ñii. yow su ma la déggee da nga bëgg ama seen dem Modou Lo dem. waaw waaw. waaw Bécaye ndax loolu c'est possible. sax famille Seck sax du am ku ngeen yóbbum ñu xool. yow ku jàppul condition physique doog mënoo ko wax ni Eumeu Sène Modou Lo bête noire am la te benn yoon ngeen bëre mu daan la benn yoon loolu lan nga ciy tontu ñuy wax ni Eumeu Sène Modou Lo bête noire am la fu mu dajeeg moom da koy daan lan nga leen di tontu. non du fu mu dajeeg moom parce que benn yoon mais maa ngi jox gars yi rendez-vous le le 28 lépp di leer ba booy déglu leen bii Modou Lo moo ko est-ce avantage boobu ñuy wax ne da nga koo am ci Eumeu Sène est-ce que am na avantage psychologique boobu daan nga ko benn yoon donc boo ñëwee da nga koy daan est-ce que loolu am na. waaw amul avantage man ma mbër bu may sóoraale mbër mooy damay jàpp ni dama lay duma dama lay loolu laay liggéey te loolu laay indi ci làmb bi te loolu laa nga daanoon ak bi nga gis nii tey benn la. waaw Eumeu Sène Eumeu Sène la rek ah. contraire kay xanaa sax dafa gën a gudd kay âge day gën a dem rek ci moom. c'est-à-dire. non boobu ak léegi ñaata at la. mat na trois ans ou quatre ans. oui atam da ciy yokk rek ah. mais ñu ne daan maa de bul fàtte loolu. ñu ne daan ah. bi mu ngi le foo xale mu ngi lay foo xale mu ngi lay koy def kon foofu soog a bëgg a wax ni ama mag la. waaw moom mag la am déedéet mais ba muy bëree ñun xalaatuñu sax ñu mën a jàpp la ama seen. ma ne ñaar ñi ko daan ma leen daan loolu la loolu. doy na wax na wax na. ah wax na ci yow. ki nga daan ñaari yoon. waaw dama ko daan ñaari yoon. boo bërjee bu leen daan ñoom ñaar dama leen daan dama ko daan rendez-vous le 28 incha allah jartu wax dëgg yàlla incha mu daan man maa daan moom man maa ko daan. et eh, damaa bëgg ñu déglu waa déglu leen rek Moodu nga ni. damay la kii ma daan ak moom moo ko daan mais moom mi leen daan man maa ko daan moom. kon foofu loo bëgg a waxaat. Ah, amul wax maa daan kon mënante dafa am seen diggante. maa ko bëreloo ba mu bàyyi ma jàpp ko daan ko jël bu yomb. yow yaa koy bëreloo. maa ko bëreloo ba mu bàyyi laa la wax. waaw waaw mais ki ko juutal. ba daan ko jël ba jàpp juutal ko. ba Sénégal la ko ëmb. xam nga dañuy def signature contrat respect mën na am. mais dañu naan champion. dama koy wax chaque fois depuis suñu combat bi passé. défaite yu mu am xalaat du ma ko am di bëree champion huit défaite du ma ko am di takk ngemb. waaw d'accord huit défaite mais yow mosoo nekk roi des arènes. waaw dañu wax dëgg. loolu dara yokku ko def ko quinze. dama la le vingt huit incha allah yal na yàlla may tala fekk. yow ba nga boo amul fula yow attends boo boo bëri jël du la échappé. rawee ci làmb mat na dix ans. waaye def ko vingt ans. daaw la nekk roi des arènes daaw loolu bëreet ma ko man sama dix ans day soog a. maa ne. jarul wax yu bari ay wax yu bari ay dàgg sa de yëpp jigéen la. ay la. le vingt et un soixante dañuy ñaan yàlla may ñu talaak fekk. mais mais problème bi problème bi seen diggante lan la. génne cadre sport wala lan la. waaw kon lan la. non génnu cadre sport. wala enjeu bi moo fort. non du enjeu bi fort. lan la. sport rek fort la ak rek rek làmb la làmb la rek. yéen ñaar fi mu leen toll dafa garaaw boobu. est ce que ëmb mos daa am combat boo fonkee nii. waaw. Ah. mais bii nag da cee raw. non làmb la rek. béykat yi bi non waxal rek bii da cee raw. non man mënew ma wax mais xam nga rek nañ bàyyi rendez-vous le 28 rek maa ngi ko ñu incha allah. Modou Modou bokkul ci combat yi nga gën a wala moom nga gën a fonk ci say combat ndax eh, eh, moment bi nga amee combat bi. combat combat la man bés yëpp laa fonk combat ma jël damay liggéey li ci war ñëw def fulla jom ak mais comme li nga wax la vingt deux soriwul mais yàlla may tala fekk ba bis ba allah. lan nga dig waa parcelle. waaw incha allah roi des rek bu soobee yàlla incha allah. mais ëm Bécaye ëm bii contre Balla Gaye da nga ne woon mbër mi mooy ñëw mais bërekat bi du ñëw contre Modou Lo ban mooy ñëw. sant yàlla rek. non man waxuma la sant eh, yàlla dama la mooy ñëw. ban mooy ñëw. dina baax incha allah mi mooy ñëw war a bërikat bi. waaw mbër mooy bërikat bi ba ñëw incha allah. kon ñaar ñëpp ñooy ànd ñëw. lan nga lan nga dig waa Pikine. ah waa Pikine moom di wax ñu yokk ñaar yi rek bu baax a baax a baax incha allah ci kàttun yàlla yàlla nañu may ndam incha allah bi dina neex de. non lamb bi day neex dégg dinañ xeex. non dina neex trop. Ah? dina neex trop. ngay wax ne combat bi deux la da ngay wala da nga bëgg a ni combat bi day métti. Ah, am. non li am yàlla moom suñu borom moo xam mais daal préparé nañ ñu war a bu ñu respecté la nag teg nañ fu ñu ko ci kattan incha allah. Modou enjeu bi lan wax waa parcelle. ci xam nga comme nawoon taw lañ koy defee incha allah jàpp ko bëri loo ko ba mu dóor ko yóbbu ko àdduna soo ko daan bu soobee yàlla. Ah. combat baa ngi noonu de. ah. combat baa ngi noonu mbokk yi yaakaar naa ni dégg nañu ñaari mbër yi li ñu wax waajal nañu seen bopp mais li ñuy wax ci côté mystique ëmb combat bi côté mystique mën nga loo wax li nga ci defagum ak fi nga ci dem ndax génn nga ci réew mi wala loo ci def. ay puis ñaata nga ci defagum ci mystique. génnuma réew maa ngi Sénégal. xam nga di profité ci occasion bi di nuyu sama mbokk joolaa yi di nuyu tamit aussi suma côté papa wàllu séeréer si di nuyu waa Màkke Jaane. Eh, mais dafa am noonu ëmb dama lay nag dafa am lu ma dafa am lu ma seet. est-ce que xool ngeen ëmb seen xool Modou Lo. lan te seetlu leen dara. sikkim bi. waaw similitude bi. lan la sikkim yi. sikkim gëm na. bàyyi garab yi mu sax sikkim bi yéen ñaar ñëpp a bàyyi sikkim bi mu sax. man nii laa mos a des man dama ko mos a bàyyi nii. Modou. yu <laughs> dara loolu laa sant rek dafa am. Ah. du ay dara daal. moom laa sant rek dafa am. Ah. <laughs> ala bi mais tey il faut nga wax ak waa Pikine ci cadre mobilisation ci cadre fair play surtout loolu Modou Lo def ko ak waa Parcelles ak ñi bëgg parce que c'est très important que ñu yemale ko ci cadre sport. parce que wax nga ko léegi Eumeu Sène li mënta génn Sénégal ñaari doomu Sénégal la koy bëre Eumeu ban appel ngay def pour ñu sportivement mbir mi daal jaar ci yoon Eumeu sportivement ban message ngay lancé waa Pikine waa Pikine ak say fans waaw lu mu leen di lancé moom mooy que fair play rek sport moom bu boolewul warut a tàkkale du dëgg te tey boo xoolee ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ñëpp ah. tey boo xoolee waa Pikine am nañ ay mbokk Parcelles waa Parcelles am nañu mbokk Pikine waaw ñu ñëpp benn nañ la nag xam nga dañ koy ku nekk fi nga féete da fay far waaye ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ñëpp ah Modou Lo sama la xam nga bu làmb ji passé dañuy bokk ndey bokk baay ah man suma yaay moomu gaañoo ñëw na si ma ma rafetlu ko torop aussi tamit bon noonu lay demee quoi moom lu mu xew la damay ñëw lu xew la damay dem c'est que moo ñu boole dañ koy teg ci cadre sport rek quoi du dëgg yar ak teggin xam nga sensibiliser ñëpp ñu ñëw waa Pikine nag xam naa ni mbaaw banlieue bi yëpp ak ah, suma supporter fu ñu nekk xam naa ni combat bi ñor na leen xam naa mobilisation bu kenn mësul gis dina am ci ci combat bi quoi waaw. Modou Mbaye lii rafet na li ma seen wax rafet na loolu mooy wone ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Bécaye ma bàyyi la ak Modou Lo. Modou dégg nga kàddu gi. te bari na ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci stade ba yaa leen am na melokaan bu stade di am rawatina yéen ñaar ku ci nekk mobilisation bi nga xam ne xamee nañ leen ko stade bi war a fees dell sur le plan sportif lan ngay wax say fans ak say supporters ak ñi la bëgg. waaw comme ni nga daan defee rek supporteru Modou Lo ku nekk ci discipline la xamee xam nga di ñaan ñëpp bu waaj comme ni nga daan waajee allah ñu préparé xam nga teel a ñëw stade. yàlla may ñu dam incha allah ñu yóbbu ko parcelle borom bi def ko bu soobee yàlla xam nga di woo waa génération xarañ waa xarañ famille xam nga waa xarañ moo ñu boole waa Tefax club di woo fépp supporter yu Modou Lo nekk parcelle 1 ba 26 xam nga waa Yoff waa Ngor Wakaam Cambérène Grand Yoff Grand Médine fépp sama supporter nekk xam nga maa lay woo ñu teel a ñëw xam nga ñu jàpp ko daan ko incha allah nekk ci leen bu soobee yàlla. Modou Lo ngi nii Ama Sène ngi nii Moustapha Diop. photo pour la presse Modou Lo ama seen taxaw leen nii. taxaw leen photo pour la presse Modou Acha. ana presse bi ñu ngi di la presse dégg nga. c'est kon nag vive la 2 vive la télévision Futur Média vive le groupe Futur Média vive Abdoulaye Mbaye vive Babou Mbaye